merci président maa ngi nuyuwaat cher collègues ñëpp nuyu chers collègues honorables députés euh, di nuyu sénégalais yëpp euh, monsieur le premier ministre nuyu naa la yàgg gouvernement bi yëpp. Euh, di la remercier ci réponse yi mais suñu question yu bëre comme sama collègue bi wax léegi yu bëre tontu woo ci ñu buggoon répété waat rek bon déjà lu may njëkk wax mooy par rapport à la DPG damaa yaakaar ni du déclaration de politique générale. mais man moom laay tuddee un discours primatorial de glorification du bilan de Macky Sall moom nga ñu présenté donc euh, moom nga moom moom nga présenté donc euh, lu ma bëgg a wax mooy conseil des de délocalisé bu ñu tenir à Sédhiou en février 2015 Macky Sall jëloon na fa ay engagement yu bëri doxoon ko ay euh, projet d'urgence wax naa ci sànq pont bi sur le fleuve Casamance barrage de Diop Kounda suñ ko fi doon liste yëpp mun nañ fay fanaan donc euh, moo ngi si document boo xam ne yaakaar naa ne yéen ko tëgg donc bëggoon nañu avant deux mille vingt quatre avant la fin du second et dernier mandat consécutif du président Macky Sall engagement yooyu ñu réalisé ko du laaj yu ñu waat peut être nee na dina dellu si waat Sédhiou donc dina jëlaat yeneen engagement mais au moins yi nañ ko tenir parce que deux mille quinze la te dañu ne woon urgence bi c' en leneen lu ma bëgg a wax wax nañu sànq si la malédiction des ressources naturelles wax le cas de Franck Timis mais am na beneen décret boo xam ne gouvernement bi jël na ko en août 2022 jël euh, société yu nekk dans le secteur de l'énergie ñoo xam ne ñoom ñoo war a toppatoo pétrole beeg gaz muy Petrosen muy SAR muy réseau gazier du Sénégal Sénélec INPG yooyu yëpp mu génne leen ci code des marché publics loolu dalul suñu xel donc lu ñu doon tiit di ragal par rapport a problème mu Franck Timis gis nañ ni avec le euh, cette dérogation au code des marchés publics gën nañu tiital te yaakaar naa ni tey wàllum transparence ak bon gouvernance da ngeen war a joxe ay gage mais gis nañ ni vraiment nekku leen ci yoon boobu euh, fu may jeexalee mooy la réécriture du PSE à quoi bon réécrire le PSE mandat bi presque jeex na on est en 2024 donc ya y un nouveau président qui va venir avec une autre vision yéen bu ngeen ñëwee euh, en 2012 da ngeen fi fekk le docu le document de politique économique et sociale moom la leen Ablaye Wade bàyyi loon vous l'avez changé ngeen recopier ko daf stratégie nationale de développement économique et social ngeen toogaat tuuti changé recopier waat indi waat le plan Sénégal émergent axe prix axe yu ngeen fa développé moom moo nekk sur le document politique économique et social Ablaye Wade les trois moo ngi ci document de politique économique sociale bi donc soxlawuñu une nouvelle un nouveau PSE PAP bi euh, réactualiser leen ko mais ngeen bàyyi président buy ñëw en 2024 mu proposer un plan sinon xaalis bu ngeen di jeter par la fenêtre la xaalis bu ngeen di yàq la vraiment on veut une nouvelle vision avec l'autosuffisance collective le patriotisme économique et le développement endogène mais on veut pas d'un développement extraverti donc euh, nga xam moom moo nekk ci PSE bi monsieur le premier mi je vous remercie merci chers La parole est donnée à notre collègue euh, Ibrahim Diop.